li tax euh, benn activité bi nga xam ci ba activité phare yi la woon muy euh, euh, caravane bi caravane bi dafa nekkoon loo xam ne ñëpp la ñu naroon dajale parce que de langues yi ñu codifié ñoom ñëpp seen représentant naroon nañ fa nekk organisation de la société civile yi war fa nekk ah. privé yi war fa nekk collectivité territoriale wala fa nekk niveau centre central d'Écosse ñëpp dañ fa nar waroon nekk. donc ñëpp la ñu waroon euh, lañ ñooñu ñoo waroon retrouver ci caravane bi ñu waroon daje euh, ba si sillonné presque dakaar ba biir Dakar wàcc joxe suñu don yi ci prison yi Rebeuss euh, Mack Liberté 6 Hann mosquée omarienne daara ba fa nekk continuer naroon retrouver nag.

Euh, loolu dafa nekkoon loo xam ne wax dëgg yàlla li ñu waroon mën a def rek mooy ñu annuler activité boobu parce que ay nit lu ñu nekk ci ay jafe-jafe di dund lu metti nga ngay ngay def folklore mais terewul ñu ngi doon dérouler euh, parce que euh, niveau central mu ngi déroulé parce que Sénégal du dakaar rek c'est partout donc ñu ngi continuer woon di dérouler activité mais li nga xam ne lépp dafa amoon folklore dañ ko changer def ko ay rencontre en ligne wala rencontre présentielle conférence panel noonu lañ ko mujj def ba le 14 ci la euh, Matam clôturé euh, mais beneen activité bu am solo boo xam ne yàggoon nañ ko laaj nit ñi di ko laaj mooy secteur bi dafa nekk secteur bu am solo wante daawuñ toog di waxtaan ku nekk da nga nekkoon sa ruq rek parce que c'est transversal ñëpp ñoo koy def alphabétisation boo ko xoolee ñi analphabète fépp la ñu nekk ci réew mi ministère yu bari ministère de la femme ministère de la jeunesse des sports ministère de l'artisanat de la formation professionnelle euh, etc. Fait fépp foo ci jëm ni cible dañu analphabète donc nous ñu ngi ñu ngi déroulé ay euh, activité d'alphabétisation mais nag li gën mooy ñu toog ñun ñëpp xam Sénégal lii moo fi nekk ci analphabète yi fi dafa doy ñu toog waxtaan seet naka la ñuy demee la main dans la main parce que lu kenn man defe naa ne fukk moo ko daax ku nekk ànd sa expertise muy privé muy muy organisation sociale mu niveau central niveau déconcentré ñëpp ñëw ñu toog nag waxtaan xool défi bi parce que vers les années dix daa ngeen dégg peut-être boobu am na ñu juttuwul woon ci yéen mais alphabétisation dañ ko doon wax ba 2000 ak yooyu dañ ko doon wax di ko mais toog nañ ay années yoo xam ne déggatoo ci dara te ñëpp ngi développé li nag mooy ñu ñu ñu toog waxtaan nag def li ñuy wax état des lieux activité boobu annulé wuñ ko dañ ko décalé te dina am ci mois de d'octobre mais commencé nañ ko liggéey euh, il faut des ateliers yoo xam ne ñi ma wax ne acteurs yi yëpp ku ci nekk dangay am sa représentation ñu préparer ko ba ministre de l'éducation nationale bi nga xam ne dafa engagé wu tey taxaw moom it ci wetu président la république bi nga xam ne moo dugal loxoom nee na ñu def ko forum boo xam ne du ñu bàyyi kenn gannaaw ñépp noo nar a ñëw ñu toog waxtaane ko li ñuy wax pencoo ko pencoo secteur bi waxante dëgg xool li ko bloqué li tax amul visibilité li tax doxul te mu nekk lu am solo ci réew mi pour dindi fi ñàkk jàng ñàkk bind ñàkk liir surtout jigéen ak xale bi nga xam ne ñoom ñoo porté véritablement société bi jigéen ñi ñu ngi liggéey ñëpp gis nañ leen ci secteur yëpp mais nag seen jàng demewul noonu am na ñoom dugguñ ci école am na ñoom dañu dugg école génn léegi nag loolu dañoo ëpp ci Sénégal parce que téeméer boo jël juróom fukk yeeg ñeent jàng mënuñu jàng mënuñu lire mënuñu bind te président la république dafa wax ne bëggul bàyyi kenn gannaaw comme bëgguñ bàyyi kenn gannaaw te lu ëpp ci population bi nekk ay jigéen jànguñu liiruñu mënuñu lire mënuñu calculer loolu nag il faut nag ñu jóg ci pour mun a wax nag développement durable wala émergence de sa pays